bu jigéen pour mën a am këyit mu am ca këyit di liggéey ñu ñu jël ko agent de sécurité muy taxaw ca buntu galerie Lafayette galerie Lafayette femme fa la nekkoon nekk fa di fa majaalake sol yére bàyyi faaleke di wax bagg Cheikh Ibra faaleke ba commencé transformé yenn tubaab yuy liggéey ci biir galerie bi mu leen sol ay njaxasek la ndox yooyu ba gaa yi gis na kii mi ngi perturbé système bi foofu ñu jëlee ko fa yóbbu ko ci beneen zone muy Carrefour groupe bi ko yóbbu woon Galerie Lafayette société de sécurité gardiennage bi jëlee ko fa yóbbu ko gars yi ñaxtu ñu jëlee ko fa yóbbu ko ci ay magasin Carrefour mu mu leen di garde sécurité Moustapha Dieng bi. xale xaalis même. mu dem fa ca Carrefour ga caissière yi yor kees gi mu jàpp ci caissière yi bu buñ jëlee pause mu dugal kenn ci roq. Ah, def ni gannaaw gi golo gi defoon rek. di jàpp di jàpp ci kees yi di def golo ge ganaar gi dem ganaar gi yuuxoo bañ bañ bañ mu ko ci ganaar ba ganaar ne kodd rek mu nekk ci rek <laughs> mu nekk ci rek ba 2011 nag nationalité française am génn ndax ki mu takk française la am nañ benn doom nag mu am ci nationalité française moom Moustapha Dieng bi de daal dina nag ñu koy ba léegi ba léegi vigile la de comme passeport français génn mu ne mëyi na dem Amérique day seeti Akon Akon Akon Thiam day fen de xamul ay kan de waaye day yaaw yi ku ku mën a dóor la waa jigéen gis ni ak mën a dóor day taxaw léegi ne la yàllaa ma convoqué ci yàlla jëm fit lay doxe dem Amérique làmb làmb làmb làmb làmb làmb gisul dara mu dellu suwaat bi mu ñëwaatee fëgg galerie la fayet ka ko embauché woon foofu dugal ko fa mu ne ko damaa ñëwaat kooku ne ko mënuma laa jël ndax yow da ngay déserté doo doo respecté heure bu ñu la planifié doo ñëw amoo waxtu da ngay nelaw ko di màjjale ki affaire yu sëñ beeg Cheikh Ibra Faal ki fii dañuy liggéey ay tubaab fii amu ay maam yu baax fii dañuy xëy heure wàcc heure sa dof-dof li gii nga fi nekkee ki di màjjale ki di wax Cheikh Ibra Faal fii Cheikh Ibra Faal néew fi ay nit ñuy xëy heure wàcc heure fi am te yow doo respecté waxtu mënatu laa jël daax moom kay fu ñu ŋàbbe maam yi dem moom sàcc gu métt ak duul ak yéeg ko wàcc loolu rek fu ñu ŋàbbe seen maam yi rek ay duulkat lañ ce ca 2012 ba Eken Thiam jóge États-Unis ñëw vacances France dem galerie Lafayette di def shopping bi muy def shopping mu dem tasafaak sénégalais bi nga xam ne moo fa nekkoon chef ci agent de sécurité mooy seen patron te moo fa dugaloon Moustapha Dieng bi Eken gis ne kii ab sénégalais la muy wax ak moom ci olof yi naa ñi ñuy waxtaan mu ne ko am na sama benn waay boo xam ne maa ko embauché woon fii mu ne woon day dem États-Unis yow lay seeti mu ne woon xam na la ba moo taxoon mu ñàkk liggéeyam dem ku tudd diw ku tudd Moustapha Dieng ay kan na ko non je le connais pas kooku musuma ko gis xawma ko sax gis nga dóor na dóor na waa ji ba waaye waaye xamul ne àdduna dafa yaatu ba ay kan dina ma sa ñëw Paris bay shopping ba taseeg chef gi nga xam ne mooy chef de sécurité bi mu nekk ci muy wax ak ay kan parce que sénégalais la ba ba kooku fàttali ko loolu ay kan na ko kooku xawma ko musuma ko gis mooy Moustapha Dieng mi de fit wi nekk ci moom newul ci Macky Sall moo dàq dóor Iblis akan xaaral imam xaaral mustafa Dieng la wala Diop. mo mo bu moo moo buub bëkk démb gone yi mbale laadi yooyu di jabatu yóbbu leen ci Macky Sall gone yi mbale laadi Tafa Dieng boobu après nag moom moo Viviane ndax moom ak Fata ay copain lañu Fata bii rab man xaw ma leen de mais tur yi rek la Fata am na Fata kuy rab ku tudd Fata. maa xam Fata <laughs> yow Fata moomu nag Fata moomu Fata moomu nag copain Fata moomu nag copain wu Moustapha bii la am na benn projet bu mu amoon moom moom Moustapha Dieng bi muy nekk galerie Lafayette Fata ñëw fa benn jour ñu toog ñëw ñaar heure pause vigile. mu naan dama am projet dama bëgg a def li wax lépp Fata ba mu paree Fata Fata dem Sénégal sàcc projet ba def ko. kaay ma wax la nag Fata ma nga woon ca pale ba dooméram ji ma nga woon ca pale ba borom bopp bu rëy bi rek Fata ma nga woon ca pale pale ba mu ngi mel xool tuñ ñi mel ni Fata ya ma nga woon ca pale ba de est-ce que yaa ngi may dégg imam allo. imam connexion bi day dem imam allo imam imam sawam dem na allo imam oh là là waa kaay kaay taxawal taxawal ma taal taxawal ma taal kii haut-parleur bi ma dugal la fii nga yeggali Kharan, Kharan, Kharan, Kharan, Kharan. fii dara du manqué yow ya. tamit da nga organisé wul dara yow ya. yow boo pare non yaa ngi ci biir live live bi daggagul de boo boo pare dinaa la def punition l'argent doit rentrer dans les caisses parce que yow nag waa doot loolu jikoy lappatu la lappatu mom il n'est pas organisé bul bul lay bul lay ok nopi rat ma dugal la ma dugal la fii lappatu mom acha waxal ñu ngi lay dégg waaw léegi maa ngi jégalu téléphone bi moo fay parce que dafa chauffé la nga xamu yi xam xamul mu jékki-jékki coupé. parce que waaw yow yow demal rek am nga fi surtout mbele la mboq ram du man soose yi la bokk ku teel rek ñëwul. waaw ah, heureusement sinon léegi Fata boobu nag nga xam ne man xaw ma Viviane il paraît parce que mas na Viviane. te Fata ku jege woon am na benn morceau boo xam ne moom ak Viviane ñoo ko defandoo. waaw waaw waaw je me rappelle boo ma teeloon wax ma indil la ko. voilà waaw man xam nga rek man xam nga man xawma leen. jaaxal daal sama sama. ku la fi ku la fi daal laaj ma man daal am naa benn rappeur boo xam ne sama biir xol laa ko dugal. sol tubéy joo xam ne fukki caay xaj fukki sàcc xaj nañ ci du def daray américain kayiti léegi ci mhm. nga xam ne mooy euh, <coughs> Doro Gaye bu ñu la ñu topp boobu ba léegi maa ngi topp ci ginnaaw muy Doro Gaye dugg naa fu ne tudd naa ko ne waaye janax ji bàyyi wuñu ko No, sànq. non des na des na benen amna benen buma wara woné a may jom yaay ko jauh, sama jéem Terima kasih yang kesehatan? Maganda mana? naman na tayo ngayon ng ordinator ng kurso. May gislip ka kayo. Biyan wayo na way dora krala. Dayag tigilin niyo wahyon niya. Buta. Wayo na way dora krala. Dama mom. Dama Mom yaayu Zeyna la. yaayu Zeyna. ndax da ko bëggul sama yaay ji ba mu jeex. fii faux billets yi la ñuy wane faux yi. ñii ñoo yor bëgg Viviane. ba képp ko takk Viviane nag mu bëgg ko ak Kine Badiane. maam dama lay wax ni. waaw keroog ba nga bàccee. nu mu tudd seen pâtisserie ba jam ñaajo de yaa ngi dugg yaa ngi ma yóbbu bu ya, ilimaan ya, lam yaa ya, ngi def yi mala lam de. bu ilimaan lam la moom laa lay wax nii. saay boo leen tojalee rek ñi yor faux yi dégg naa daw nañ foofu yëpp dem nañ sana. Karaara yàlla na sa jàmm yàgg yow mi ko gu gi. ko yow saay bu ñu la gisee dañuy wax boo xotteeku med medul kii saay moo ko gisee damay wax boo xotteeku. ana riis ki ne bañal. police maa fekk la ma daal nii. Daraara. tey sa doom a aye. waaye sa xarit toj na fi. ndax moo jàppale doomam. tey lu ne defal nañu ko barke alxuraan waaye nag boo ñëwee yow di xaritam di yaayu Zeyna dinañ la wax lu baax dëgg neexul yow nag li ma nga wax ci micro bi ci suuf laa koy waxee nan wax sa jëkkër day teral nit ñi ba yàqoo ci dara cey kalaara fekk na ma ko maa ngi ko kalaara kenn waaw Babacar ñëwal maman dama pour support sama sama dom, sama sœur sama xarit doom bi xale bu baax xale bu am jom donc eh, di gis jigéen bu entreprendre rawatina xale bu gis ko fi mu ndaw bu ko na façon certes

histoire bi mu amoon ak passeport yi ñu doon business Saalum Saalum dafa bëgg business Saalum Saalum dafa bëgg xaalis Saalum Saalum moom bu xaalis ñëwee yàlla ñëw mu sànni yàlla fële du ñëpp nekk waaye bari na ci. Saalum Saalum boo gisee maag ñoom ñaari duñu juboo dama leen di topp duma leen may dara ba Saalum du ñëpp nekk waaye bari na ci Saalum Saalum bu yàlla ñëwee xaalis ñëw ñu sànni yàlla fële. jërëjëf kon bu leen bàyyi dama leen topp rek seen tànk sama tànk ma a xam. loolu moo tax kilifa. bi mu demee nag ba am problème ci ay passeport business dil ñu doon teg te moo kenn jàll ñoom ñaar ñëpp di ay booyu nangaan maan ay nangaan maan léegi maa ngi tuddee nangaan maan nangaan xam nga kaw lax nangaan ay nangaan maan la mafia des ba ñu jàpp leen ñoom ñaar nag gis nga ni ñu ni ñu gis nga gis nga gis nga gis nga ni ñu bon gis nga de ay xarit yu bokk vingt ngeen ànd war a am coloré waaye bi yàlla xaalis ñëwee Thierno dafa jël téléphone am filmé. ki xaritam benn bakkanam na an ko maire jaar naa ci kër maire bi ah bi ma ya? gisee buntu bee mbir bi ma ne non maire bi il faut ma gën a deux tonnes ciment nga defal ko quoi te maire bi maire laa yaayu kilifa waaye gis nga li ñu seq yëpp bi yàlla ji ñëwee xaalis dafa dafa war kilifa moom Thierno Dial loolu mooy loolu mooy booy nangaan nangaan maa ni loolu mooy nangaan maa ni xaalis rek du ñëpp nag waaye ñu ci ëpp dóor rek xaalis rek dóor rek fooy très prudent dégg nga de ñoom ñaar ñëpp nag Thierno dem dugg kaso asafurla kilifa dugg kaso parce que boobu kilifa ngi xeex nekk ci xeex bi a ñu di xeex ki dina ay single tout ça xam nga sang bi affaire bi jolli xeex bi metti ñu ne kii il faut que ñu jekku ko ñu daal di jël cerno doomu ndayam daal di jaar ci cerno nag tegal ko xaalis gis nga de xaalis ak booy nangan nangan hélas eh, Diouf cerno liste Saalum Saalum moom il faut ñu dressé ko gars Saalum Saalum seen liste yi jiite faut ñu dressé ko il faut ñu taxawal liste bi génn yëpp ba ci Adji Sarr bi El Hadj bi ci nekk ak ñoom ñooñu euh, euh, procureur bi am na Diouf ñoom ñëpp waa ay ah. la voilà dama lay lu leer de. am nga doomu ndey su nekk sa doomu ndey nekkoon na moytu de. non kooku kay maa ko téye kooku moom maa ko téye maa yor yet yi kooku moom. ma ko waree ñuus moom commentaire yëpp laay puus maa moom kese mooy ko kay maa ko ñuus sa Thiès sa Thiès waaye man nee naa leen léegi boo leen ci sa sa Saloum sa Saloum sa Saloum ko téye na mooy de bu dekkoon ne kenn du ci dugg maa ak moom six mois lay doon six mois de live dégg nga de nag déli booy léegi Ahmed Khalifa Niass ak ñoom na benn ñu dóor rek xaalis rek boo tax lu ngeen gisee ma toog ma ko jaam ñaan ma bàyyi bàyyi ma ma leen a xam de Baye Mbaye MC si xam a xam a xam a xam a nañ bu baax li may dañoo bëgg luxe te Kaolack dafa tàng dafa tàng bari yow moo tax bu ñu ñëwee Ndakaaru dañuy nekk àjjana dañuy blow boo paree daal xam naa ne boo paree daal <laughs> am na am na benn dossier bu mën a bëgg indi lépp ci Doro Gaye nag nitu Saalum doora nag mooy rek doora mooy centralité bi nekk léegi doora nag li ko boole kilifa mooy biñ jàppee kilifa ci passeport yi kilifa nekk ci kaso bi doora dafa dugg ci dossier kilifa def ay link dem toog ak kilifa ci kaso bi wax ak moom teg ak moom dil pour ne naa la jàppale mën naa laa génn fii mais nag à condition ko boo génnee nga teggi sa tànk tout ça et ma jàppale la ñu teg ay business ñu produire la wala ñu def business doora ak kilifa dégg nga de ñu teg seen dil ba kilifa génn doora ngoo génne kilifa kaso doora géy jamono boobu ñuy ñuy wax kilifa ak Thierno Diallo bi nga xam ne copain la moo ko piégé woon ñu ne Thierno Diallo dañ fa doon am ay appartement yu muy luye yor ay double clé yenn appartement yi xaw ma Eliman Lam xaw ma lan dafa sàcc ay bagage Eliman Lam ak xaalis Eliman Lam ci ay appartement almadi ñu jàpp Thierno ne ko ciix ci kasa bi moom it Thierno Diallo ak kilifa yëpp Doore Gueye moo leen génne kaso Doore Gueye ak ñi nekk ci nguur gi ñoo ànd kaso bi waxoon naa leen ci ñel bi dëj mën a laa génne ndax doora ak procureur ak juge d'instruction bi ak enquêteur bi nekk section de recherche wala ki nekk commissariat central section urbaine ak doora benn lañ ñoo bokk ay mbuus dañuy tëjee ka jàpp ka bàyyi benn mafia bi la doora day graisse rek buntu yi ubbeeku moom buntu yi graisse rek <coughs> patu buntu mu bi du yuuxu rek day génn pat bi rek graisse bu graisse rek buntu bi ubbeeku ci reex moom daal ay millions fa ne dañu am ñaari mbir am na ñoo xam ne ci biir prison ciel ouverte bi fa lañ leen di baabe boo d'accordul ñu fexe luñ la takkal dugal la prison ciel fermé mooy kaso door a fekk la fa baabanteeg yow am lum la am fum la poñe jox la xaalis nga génn nekk ci liggéeyam loolu daal moo ci xaw a doy waar léegi nag ma xamal leen barki démb ba nga leen gis ripu xawma rifu xawma xawma xawma du rifu la ma ngay jàppatu ma ngay dal di kenn ku ne ñoom ñëpp ñuy wax ña ngay tamante dëmul te bañu bañu bañu duggee ci pale bi laa leen xaalis génn na bañu duggee ci pale bi am nañu xam nga waxtaan am nañu ma ma leen xaalis génn na ñu ne ma noo ba leen baax na <laughs> riifu mooy nee na Macky Sall <laughs> moom moom dafa gaaw a jëfur sax nee na Macky Sall neuf la neuf moom dafa gaaw a jëfur ma yow neuf ñoom dama leen a xaama xaama xaama xaama xam mais comme gis nga ko nee na damay dem tàng nag damay lekk dibi xam nga euh, dundu mbedd yooyu ñu tàmm dundu nekk ci mbedd yi di wëlbati mbalitu tubaab bi di xool ndax am na benn dong dong boo fay for lekk ko benn biscuit ak benn dogu jambon boo fay for mbalit tubaab xam nga mbalit tubaab Sénégal booy booy booy nangaan dañoo. loolu mooy poubelle bi loolu mooy poubelle mbalitu tubaab poubelle lekk ci poubelle ay tànganaaki. babu anggap nga ñoom ay nitu mbedd lañ boobu waa par ñoom ay nitu mbedd lañ ñoom ñoom xam nga waa kaw la ay ay nitu mbedd lañ ñoom dañ ko wax ñoom ay nitu mbedd lañ boobu nga par ñoom ci mbedd bi lañ juddoo fi lañ fi tawte ba ay nitu mbedd lañ xam min lañu yoo ki nge mbooyaa ki di nga maam tuumuranke ñoom dañoo tuumuranke rifu rifu dañ koy yóbbu ci palais boo gis Macky Sall làmpi rek génn gitu. gitu, gitu. waa ki ma gis ci télé bi de cara é louco, Eu não Saloum. dañoo gaaw a sali. loolu mooy xam nga loolu mooy lan ake xam nga loolu mooy lan. ja ya, ko yóbbu ko ba sali mu xool géej gi ba mu yàgg mu ne ah waay waay lii yëpp yàpp. am nga beneen. daaw dafay dafay suñu suñu. a gis géej gi mu ne ndekete géej dafay dox mu ne kon nag da ku koy indi fii dina jombi géeju géeju jowaale bi yëpp ndeket ndeket géeju jowaale bi dox na ba ak si fii mu sa mu sa dem Dakar xam waaye waaye akat akat di nga rey lappata yi riifu riifu moom it akat di nga rey lappata yi tigay seetli loolu la Macky Sall xam ci ñoom bi loolu la loolu la Macky Sall xam ci ñoom moo tax di nga maam loo def ak ñoom wóorut looy duggante ñoom di leen surveiller saa kaw la saa kaw la looy def ak ñoom to ab ab furna la furna boo xam ne këriñ li daa gëmm foo tool da ngay upp booy noppee upp furna bi këriñ li di ba

dafay wax ne xaalis boobu nga gis ñu di ko farote di ko génne ki koy jox Gabriel kan xaalis mi làppato yi ñi ngeen topp ay sàcc lañu waaye ndokk bañ leen di sàcc parce que ñi ñuy sàcc ay làppato lañu amuñu fay fayda jóg dem uti carte d'identité fexe ba bindu ji bind seeni mbokk bu leen woowee ci ay pooke ay caaxaan ak fecc ngeen lànk dem daas fanaanal te ànd ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg a tabax réew mi ba ngeen gis ci seen bopp ngeen ànd ak ñoom bu ñu wootee ngeen ñëw su élection ñëwee ngeen taxaw voté massivement ñoom ñu gañ bu ñu leen bëggee faagaagal ngeen gën a teg ci seen bakkan bu ngeen ko deful da ngeen gën a dee da ngeen gën a ndóol da ngeen gën a dëkk ci yelwaan pour am lu ngeen lekk ñii ngeen yelwaan faale wuñ leen bu ñu sañoon bés bu nekk ngeen di lii mooy li nga xam ne il faut ngeen xam kii nag di Doro Gueye ana photo bi photo Doro Gueye bi. photo Doro bi ak Wally Seck. jota ma ko woon envoyé jota ma ko woon envoyé. ci sa galerie nga génn affiché ko ci écran <coughs> déedéet aw ma ko application bi du jël du jël euh, photo kese il faut mu am tuuti son voilà dinaa ko defar suba léegi ne noonu xam ne Doore Gueye daañu ñëwaat ci Doore Gueye Pape Doore Gueye saa Kaolack la waa Kaolack moom moo dig Macky Sall ne ko dinaa la liggéey fexe la ba nga taxawaat am troisième mandat rapport yi dina ci sa kaw ñëpp a leen dajale te koy jaaree ci kilifa jaarale ko ci caat jaarale ko ci diw ak diw ak diw ak diw ak diw fexe ba dajale leen ñoom ñëpp tëgg soirée génn xaalis jox leen tout ça dégg nga ba ñoom ñëpp ñu ñëw bu ñu génnee kenn ku nekk wax wax wax wax wax wax wax wax boo xam ne da ci mën a defar sa image da nga mën a taxawaat lii Doro Gueye moo nekk ci ginnaaw ñuy wax ay waxu ministre Alioune Sow ak ay ministre yu xawma euh, Anita Diop ak ministre de la jeunesse yooyu yëpp ay caaxaan la ñooñu. dañ leen ni mbubboo bu coow amee dañuy jël ministère yi teg jël état teg waaye mbir moomu ñi ko dox ñëpp nekkuñu ci état Doro Gaye ko dox Elimane Lam Moustapha Dieng ak Macky Sall ñoom ñëpp kenn newuñu ci état xanaa Macky Sall moom moo nekk ci état ba noppi di complot ci suuf di teg ay dil ñu jël ministre bi laxas ko ci dugal ko ci yóbbaale ko bu coow li amee ñu teg ko ne moom ci moom la jaar moo lu budget bi moo ministère bi loolu la Tafa Dieng di jéem a teg tel ci seen kaw. di leen teg dil Tafa Dieng c'est un dealer Tafa Dieng tekkatu dil la Tafa Dieng li muy def gëmu ci dara làmmiñ wi neex na wax naa wax wax wax ba nax leen yeen ñepp bu leen yóbbu ci Macky Sall Macky Sall mo mo ñent personne la ma laaj ko juróom day tek. Macky Sall mo ne ko bu ma rapport yi nekk Sénégal yépp le maximum possible wala ñepp bu ñepp paré won Macky Sall ko bi sal des banques recevoir fa 350 personnes wala 400 rapport Macky Sall bu Sénégal yépp doon 17 millions de rapport paré né pour recevoir day fenn dafa jeex day fen lu mu la wax day fen gëmul dara xaalis lay wër ak nappaaje ak dund xayaat di jaay bàyyi faale ki taalibe dara réew mi ku la fi dàq dóor moo la dàq tudd sëñ Tuuba ku la fi dàq dóor dàq naa fen nee naa la bu ñu andee nee naa la bu ñu andee seen fen kër yow barki Cheikh Ibra Fall barki barki Chamat Bamba barki dóor fen rek fen dóor rek dóor guddi ak bëccëg kàcc guddi ak bëccëg mbubboo ko sëñ Tuuba ak Cheikh Ibra Fall moom kay nee naa la fu ñu transporté maam yi rek ngàddal yëpp xamal na ay duul katangoo maam yi moom bu ñu indee xaj ci takk rek dóoral loolu mooy li nga xam ne mooy li ñuy indi tey du ko fi yemale ay série série la daañu leen indilaat yeneen ak yeneen ci doore géey dégg nga maam ak li mu seq ak waali seq bu xaalis bi weesoo leneen lu ñu seq ci wàllu mbiru góor jigéen ak réseau góor jigéen ñi ñu nekk ak mafia yi ak ñeneen ñu nekk ci biir réseau bi yor ay xaalis dama ko ñëw ngeen jàpp ne dañuy liggéey dañuy am xaalis dañu ci bari ay góor jigéen lañu góor jigéen gi ñu nekk moo leen may alal ñu ci bari daan ci ñëw góor jigéen gi mi ngi ba ci biir sëriñ si am na ay góor jigéen justice bi am na góor jigéen gendarmerie bi am na ay góor jigéen musiciens yi am na ay góor jigéen rappeurs yi am na ay góor jigéen daan leen indil ñëpp tegal leen ko ci ko ji benn par benn après yaa ngay rax kat wow Hah? wow mau ahad kan ahad kan ah kan aji sal ko wadi kan suta aji ko wadi kan abla aji wa aji ko wadi ha pa pa pa pa mun ai mun ma wow mun ko kan suta abla aji ko wadi de kan suta abla aji wa lu leer rab mun ko yobu ko ñam aji mo de kan suta abla dañoo réew mi li fi nekk yëpp réew ba audio yi génn audio yi am na yu a génn di am na yoo xam ne bu wattee daañu xam ne lépp dëgg la. waaw ah, man Ibrahima Kébé caal. xaaral ma indi aji bu ko aji bu ko neexee moo doon candidat benn boo ko yaakaar laa wax aji moo war volon bi fi mu toll moo koy dawal. volon benn boo ko yaakaar gannaaw gee gannaaw gee golo ko yor ana gannaaw gi golo gi te kanam la ko mokkal gannaaw ngeen ko la gis. ah te du dugg ci waaw du dugg ci waaw bu tàggaay yóbbu ma kër yaa ma di tax. carrément andi aji yéen aji aji yéen aji moo yéen mën a carrément andi leen laajal doole laajal doole géey ndax xam na aji saar laajal doole géey ndax seq naa ak aji saar doole géey xaaral rek kañ yow kay xaaral ma indil la aji xaaral ma indil la ganaar geeg doora rek soit ñu laajte ndax doora la wala aji doora gay ndax doora gay xam na aji ndax gis na ko wala gis ko ndax mos na ko wala mosu ko laaj leen doora gay loolu laaj leen ko ko doora kor ko laara xaaral rek ñu xool dinañ xool ndax doora mos na wala mosut dinañ laaj ndax doora kii yow la ki nga xam ne mooy ñaareelu avocat aji saal bi maître Abdou Dali Kane Abdou Dali Kane avocat bi moom moom déet waay maa wax lu mel ni yow kon aji mi gàddu na àq kat ayo ajo yéen wala bi di abdou dali kan aloka aloka aji saan benn bi aji saan doomu nangam taanu ndayam bi aji saan ci nee aji saan ku mën a aji saan ku mën a fen la ma ko aji mën a fen daal fen aji lu wax dëgg la yow mi koy ci Ousmane nga ah, ayo kayak du ayo ayi lu wax deug la maître après ma ngay ñun nag na bu ngeen ma joxul li yore dama may tax wala ma taxaw samp sama nënd ne Macky Sall taxawel ne maay candidat maay seen sànni sàccu fi ma jaar ak yéen kenn ku ne ci yéen mos jaar ak man fi mu jaar ak man tek seen i complot ma ànd ak yéen ma filmer leen yéen ñëpp enregistré leen yéen seen wax yéen ñëpp seen vidéo bu ngeen ma deful candidat candidat 2024 ma jàkkaarloo ak Ousmane Sonko bu ngeen ko deful nguur gi léegi laa ko def. am imaam am imaam am baadu kii ma maa yor maa yor cumbukaay. am Dora Gueye a ngi nii indil naa la Dora Gueye indil naa la Dora. Dora mu ngoog. am Dora ngoog. ñi ñi gisoo xam nga am na ay golo ay golo yu ñu fi wane woon golo golo yoo xam ne ñu xam leen maanaam gis nga def golo cib gerte golo cib gerte lool lool mere woon la lool waaye aju yërëm naa ndax kenn dalaa dimbaliwul gaa yi séeq la rek ku yéegu wàcc sa morom yéeg ku yéegu wàcc sa morom yéeg da ngay xool ni mu réew réew muñ ne Bàmbaa ko moom Mawdaa ko moom mag ñu baax ñi ku nekk ngeen tudd ko làppate yi bu ngeen génne ku nekk réew maa ngi noonu agent bi bi gis ngeen ni a dem fenn ku yéegu wàcc sa morom yéeg ajee ngoog laa jeexale ubbi liñ bi jox leen ñoom it <coughs> naa ci ba beneen yoon man dama reetaan ba coroxaan dama wuti woon lu naan way sama deh. Iya. ma reet reetaan naa bay bëgg a dee way no, imam imam imam bi dem barki rasulullah moom ne c'est pas possible wali dëgg la ak nañ ko yërëm wal imam ya ni dapat def làppato yi dapat dafa ñaaw aju sonn na lii lii de mau am lii Wow, moo am ci aju de waaw lii moo am yërmande waay yërmande ci Anak gue lagi amulin kan? Ahmed Khalifa Niass bàyyil gone Ahmed Khalifa Niass bàyyil gone Ahmed ah, Ahmed ah xaaral ma liiral la ko xaaral rek ma liiral la ko xaaral ma tegal la xaaral xaaral rek xaaral nga taxaw liste bi laa lay liiral léegi. xoolal agent bip bi agent bip bi moom ci génn gi lay téye nee na ko aji doo dem fenn dañ ma laa dégg Antoine moom la dégg xoolal kalkal kalkal nga ko de gis nga mais na ma déglu ma liiral la déglu ma liiral la farba ah ah farba mu wàccal Ahmad Khalifanyas. Ahmad Khalifanyas. Amboy Diaw. Antoine Felix John. Ah, Antoine Felix John. Abdoulaye Daouda Diallo. Pap Pap Samba Diop. <laughs> Pap bukan kay dali meter LSG wajar punya kon avocat yi yëg loolu ba toog am nga Jeylaani kan Mamour Diallo ak borom loxo borom pulox yi moo jeexal li si kiriku moom aji dana tudd ñu ne la tudd kiriku dem la daaj lu yenn ko indi daj aji saa dana na ngay daal tabure nag nga mën cee taxaw pour l'instant ndax su bang du déglu day dam mu dem mu dem daaj lu bagu mu dem daaj lu bagu tabure bu bu weñ bu dëgër këcc ñëw teg waa des na pour jeexal pour teg liste bi borom pour loox pour loox borom carte électeur yi. borom toolu ñaam bi bi moom moom ba mu dem ñaam bi la yóbbaale ñaam bi ci pul ca toolu pul wax wala dem buddi fa benn ñaam bi bu la ko def ko ci suuf dubéy koo koy koo nguuy. waaw man li ma ci metti ñoom ñooñu yëpp songu aji lu tax aji demul ardo. ah dañ doon concours kenn ku nekk na mën naa koo ëmbal mën naa ko biral bu ma ko jàppee man bu ma koy kii muy biir. waaw xamuñu ne aji moom doomi melalaan la xamuñu ne aji doomi séeréer la. waaw léegi man li ma ci jaaxal mooy. même buñ ko ëmbalul sax aji waroon na dem réanimation. ah bés bu nekk ñu yóbbu ko docteur yi aji aji daawul jóg ko docteur yi aji suufam ji aji bés bu nekk ni ko docteur aji ak seen nan la di. Ah, ah. loo foog. Ah? ak seen nan la di aji bés bu nekk ni ñu ko docteur ba léegi nii. alors de xamul kay suufam gi na bu yàgg yàq na bu yàgg yàgg yàgg yàq nañ ko bu yàgg ñoom. yàq nañ ko bu yàgg dañ koo sax dañ koo saax saaxe. loolu de xamul dañ koo saax saaxe yàq nañ ko bu jàmm ji bu yàgg. bàyyi ba moom bàyyi ba cinquante six millions ma ngay noos moom yëgul la sax toppatawul doom bi na doom bi dee bàyyi jox nañ ko cinquante six millions ma ngay noos maa pare ci Sénégal maa pare man moo tax gisoo li ma leen di yàq fan yi bu ma génnee dama leen di yàq lu mel ni xamee loo wax am loo ci bàyyi loo wax rek am loo ci am luy hmm? am luy des daan naa négocier ak ñoom ba bala nga àggale sa gaay waaw d'accord d'accord gaay kay ma amatuma lu may àggale ak ñoom xanaa ma jox leen li li ñuy préparer suba rek tey moom kontaan naa ci manifestation bi ndax sama grand yëpp gis naa leen ci biir waaw waaw wax nga dëgg fàtte woon naa ko waaw mais nag mais aken aken xaaral ma may aken xaaral ma may la benn bala ngay dem xaaral ma may la benn xaar dama la bëgg may benn bala ngay dem Eh. yow mbay kay. <laughs> yow yow sa ci nii. mbay kaay sax mbay kaay kaay kaay lii lii la mu doon. waaye fu ngeen jëlee lii. Eh, eh, lii lii daa xeeñ cappa daa xeeñ cappa soos. ñoom ci lañ leen di toggalee añ. Ah, ah, ci ah. ñoom ci lañ leen di toggalee añ. le 31 lii. ak yaa ngi te lii nii xam nga jekkul xam nga rafetul. si ni mu ñaawee nii. si ni mu choquawee nii. mais dix yu population yi di souffrir ban moo gën a choquant entre lii. Fassane nga baal ma sa ku wéri day xeeñ soos. dégg li ma la wax. coon mhm. cappaat ala cappe. waaye Baye Ibrahima Sole am sëñ bi am jërëjëf. waaw tax dindi leen. gis nga ni moo mel. gis nga ni mu soofee. Ah! lii dafa soof naqare. mais population yi li ñuy dund. dégg nga. voilà kon gars yi man loolu laa leen di jox suba ñu préparé ko comme manifestation bi jàll na léegi boobu moo des pour suba bii réussir na léegi nag bii moo ci des slogan bi nag mooy slogan bi mi ngi lii lan la li nga yor lan mu tudd kubéer. kubéer kubéeru cin. man ñene ñu ko mënu ñu jël soufflé ñene ñu ko mënu jël soufflé dañ ko tankal ba du wax dañ ko tankal ba du wax dañ ko tankal ba du wax ak dégg waaw dañ ko tankal ba du wax de du wax du wax bi nañ ko tankal ba du wax Macky Sall c'est important waaw nañu remercier aussi gars yi bi c'était bien patriotes yi génn nañu Sénégal yëpp génn nañu pour suñu mille milliards yi njaal benn leen di encouragé leen jox seen wàccuwaay ñoom tamit ci taxawaay bi ñu ngi taxawee fexe moom càcc gi nag suñu alal delloo ñu delloo suñu ñu ngi leen di jaajëfal société civile bi ñuy woote woon tey ñoom ñëpp dañuy fexe ba nga xa di nga maam a yem foofu ndax tàmbali la ñun ñëpp génn nañu Sénégal gépp ñaxtu nañu waaye nañu yeneen i ay plan yoo xam ne daañu fexe ba justice mën a def liggéey ñi sàcc ñëpp ñu jàpp leen def ci kaso bi jël alal ji delloo ko askan wi ndax ñaari lii yooyu nga gis seen mbir yi tàqaloo a am jiwu engrais ci lekk am dépense loolu lépp ñoom ñu ngi jël alal ji sàcc ko ko seen biir ko lekk loolu dafa war a dagg kon da ñëpp taxaw ñu ñu fay ñu suñu ay milliards ñu delloo ko ci askan wi xeex bi du dàkk mukk bés bu nekk xeex nañ ñëpp jóg bu ñu woote ne ñëw ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp. jaajëf jaajëf voilà gars yi kon xam naa fii la ñuy yem ñu dellu si waat ci spécial Dora Gaye man tamit am naa benn spécial jox am naa benn spécial Xaadim Samb boo xam ne dama leen ko war a indil spécial Xaadim Samb boobu moom tuuti laa ciy wax rek bàyyi leen ak ligne bi <coughs> léegi nag slogan bi daal mi ngi nii nañ ko tankal ba du wax basan li lan la li nga yor lan tuddu kubéer kubéer kubéeru cin man amna benen de lo am ñene ñu ko mënu ñu jël soufflé ñooñu ko mën a jël soufflé dañ ko tànqal ba du wax dañ ko tànqal ba du wax waaw dañ ko tànqal ba du wax de du wax de wóor na yàlla du dama ko dama eh écoute volume dama ko wañi de. oustaz. Eh, yokkal aw ma benn problème. non dama wañi volume bi sax. Hmm. dama wàññi volume bi la wañi président xam nga son laa indi man. arabisant yep nañ ko topando man li ma don sama trompette xam nga trompette. xam nga xam nga trompette. waaw man lii luma neex manako ci def. Eh, oustaz ñu xol dama oustaz il a du talent machallah. trompette violon. di ko taxal ne man de moom laa yore te boo may déglu ah ci. yàlla yéen. waaw xam eh, nga islam fekkali ma saag ma bégal oustaz. sedd si moom. Eh, xam nga doog a daal mais oustaz oustaz. doog a daal eh, xaaral oustaz xaaral. ba xoolal danga may jox. بيقول بيقول استاذ non mais oustaz yi jël na ndam li oustaz nee na slogan nañ ko tànkal ba du wax bu mu wax Macky du wax de su suba nañ ko tànkal na petit tëggu xoolal pétard yi sax remplacé nañ ko ay kubéer kañ kañ kañ kañ kañ slogan bi nañ ko tànkal ba du tamit bu fi rek def dugg si ñëpp ñëppay ñëw di ngeen def luñu nakar de waye yeen ci li leen naqari rek lañu ñu dëkk bu soobee yalla kon gaay ñu ñu ni nii ga suba bi dimbali leen ñu rek ni tay réussir Pitim pap, pitim pap, pitim pitim pap. Swing Chewing Metals Fresh Action pour une explosion de fraîcheur. moom bu baax a baax alors euh, ci politique boobu sax nañuy des euh, maam Birame période euh, élection wala sax laata ñuy dugg ci élection période yi nañuy tuddee le temps des grandes manœuvres si la nit ñi di lijjanti ay coalition qui yooyu am coalition bu judd démb bu tudd lu mu tudd sax sauver le Sénégal am na ñu ko dàqantelee ci wolof de. sàmm sa kaddu sàmm sa kaddu voilà sauver le Sénégal sàmm sa kaddu coalition bi regroupé entre autres Khalifa Sall taxawu Sénégal gis nañ fa Barthélémy Diaz gis nañ fa aussi Anta Babacar Ngom euh, Bougane nag euh, Pape Djibril Fall euh, coalition bob déjà ban jàngat nga ci def Mame euh waaw de toutes les façons mënoon nañ ko xaaraa ah, hum. puisque quelque part ay élection la ñu jëm hum, hum. élection yoo xamante ni du présidentiel législative ñu wara fal ay députés euh nga xamanteni ne ni tasaaroo bi japp nañu ne arrangé wul opposition bi nga xamante ni présidentielle bi passé candidat yu ci bëri ay frein orange money lañ amoon ñu considéré que ne bu nekkee ay nangam nga am nga ne da ngay demal sa bopp boo moytul sa caution doo ko jot te doo am euh, donc bu nekkee loolu am na ñu regroupé wu euh, quelque part da nga koy mën a comprendre mm. seulement nag dafa nek ay ay ay regroupement yo cohérence hmm. puisque quand même gis nga ci ay il y a huit mois ñu ngi ci terrain bi di donc bu dañu am je quelque part ça euh, faciliter le pouvoir euh, euh, comment dire sa campagne hmm. puisque nous nga le système hmm tey ñu propre camp di par rapport ak euh, euh, euh, passif par mm. rapport au parti au pouvoir Les n'a bu boba sénégalais duñ fi di la tête ils vont tout simplement se demander ndax dañuy dañuy l'ancien monde mu occuper assemblée nationale wala comme nous ko démarré le 24 mars on veut un nouveau monde un nouveau Sénégal dañuy voter pour que ñu am rupture par rapport à ce système là mm-hmm. comme nous ko waxé sans bu du point de vue euh, de euh, la représentativité. oui jàpp naa ne euh, coalition Bobu, amul len lenn l'année lay tey lu mën tax ñu xalaat ne dina un nombre assez conséquent assemblée nationale de députés. puisque comme nous ma ko waxee sànq ba ñu demee élection présidentielle bi nga ni le dernier baromètre pour notre ñi fa monde mhm. ay zéro nga ci à part pur yaakaar naa ne amu ci kenn koo xamante ni dépassé na les deux pour cent mhm. donc ñooñu bu ñu euh, euh, d'ajé quelque part da ngay comprendre que rek circonstance moo taxaw nekkul ne dañoo gëmante nekkul ne dañoo bokk ay idée circonstance moo taxaw pouvoir Ousmane Sonko bi mu ngi déroulé jàpp nañu ne dañ ko war a opposé wu naka la ñuy def ba ñoom constituer seen noyau pour dem ay élection ñu def ko tout simplement mhm, mhm. Ibrahima da ngay léegi réew. mais moom adhéré dafa ne Ousmane Sonko dafa war yaru ci ay parce que bu ñu euh, sukkandikoo ba ci journal bi euh, La Tribune dafa ni soyez poli écrivez diplomatiquement parlez poliment jàpp na ni Ousmane Sonko dafa nekk ci posture gatsa gatsa bi mu woote won te waxam àndut ak teggi. Euh, non meun na japp loolu xam nga tay di nga loi. Mhm. analyse kum neex nga analyser nu la nexé ci comportement nit ki téré wuñ ko kenn mom la concerner mais li Ousmane Sonko wax ñun moo ñu intéressé. xam nga ñun soumettre ci comportement Ousmane Sonko. xam nga ci lu ñuy soumettre ci test yi fi nekk Ousmane Sonko lim wax test yi ñoko wax certes nak Sénégal ñu ngi doon appliqué lo xamni du deug du yoon mu yàgg fi ñukoy def alors que li test yi prévoir warona ak loolu. Mm-hmm. légui nak mom muy juste di rappeler yow li nga xamni constitution bi nga xamni mo teunk président ba amul droit def lu ko neex ci réew dañ ne ko loy jël ci décision dafa war a conforme au bloc de la légalité. muy loi yi waru ko maanaam waru jël mesure bu koy violer. Hmm. kan moo gën a président ku ko ëpp pouvoir ci réew mi ministre yi ku leen ëpp pouvoir autorité yi ku leen fi ëpp pouvoir te bu ñuy jël acte dañuy soumettre ci loolu ku ci jël acte boo xam ne n'est pas conforme à la constitution wala bloc de la légalité bi da ngay dem cour suprême ñu annulé ko léegi ñooñu bu ñu mënee respecté mesures yooyu waxuma laa nag ay établissement privé yu nekk ci réew mi règlement intérieur soo koy fixé da nga war soumettre ci li test yi prévoir maanaam doo violer dara léegi nag xam nga lu ñu mënta nangu Ousmane Sonko bi wax question de souveraineté la régler. réglé mënuñu nangu France ci boppam constitution ñeu fi di appliquer wu ci certains établissements privés. mais ñom sax wedd nañ lool ndax ñom nee ñom musu mosuñoo sukkandiku ci France bay am yenn dogal ci seen biir école. xam nga ñom bu leen nexé ñu weddi lu leen nex di nga coow li. mënul mhm. kenn mënul wax ba Ousmane Sonko du am région parce que test ci waxam sax Ousmane Sonko dafa ne du yoon kon ce que veut que yoon la doon. ci yoon la lan won dafa rappeler te luy yoon ñepp ñoo ci soumettre parce que état ay réglam dans l'ensemble du territoire dañ fi soumettre di euh, France am nañ fi sen ambassade sen bir territoire bo fa duggee loolu moy souveraineté externe lo fa def mm-hmm. loi bu France lañ fay appliquer mm-hmm. mais bo xasee génn foofu amatul ben possibilité ci territoire Sénégal mm-hmm. ay loi mënu fa appliquer wu léegi ñoom bu dee sukkandikuwuñ ci France légui ci ban constitution lañ su sukkandiku. mais seen règlement intérieur. mais règlement intérieur constitution moo constitution moo ci kaw président de la république constitution moko teunk moko jité ko jiite. L'autre, je vous lay un exemple école chaque fin du mois dañuy recevoir subvention de état de jox. exemple. chaque fin du mois. dañuy recevoir subvention yi nga état da mhm. subvention pendant pendant musulmans dominés musulman dañuy yëkkati seen xaalis joxe. Mhm. loolu la ñuy daje mooy impôt yeeg taxes yi. Mhm. loolu la ñuy dajale génn ci subvention yóbbu. Mhm. lu tax ñoom ñu mën a recevoir xaalis boo xam ne parent élève bii bii muuru la ba pare ñu ne duñ jël élève bi te ñu encaissé xaalisam. te chaque année ñu jël subvention di nga am na loo xam ne dañ koy wax te ñun ñëpp dañ ciy soumettre kenn mënu ci dara kenn mënu koo changer. wala soit bu changement di am dañuy demaat ba ni au niveau de l' assemblée nationale. ñu changer ko. mais réew ak diine jo mën di bok race bo mën di don sexe bo mën di amé dañ lay amul même pied d'égalité ngeen di yem. Mm-hmm. alors protestant bi sa dañ ko considérer ci réew état laïque la wax waxuma laa nag musulman alors te tamit danaa tënk lenn aussi. Mm-hmm. di nga réew di nga euh, constitution biñ koy tënk dañoo prendre en compte suñu culture. Mm-hmm. France boo fa demee seen culture culture christianisme la.

ñun ak catholique yi amuñu benn problème. Mm-hmm. il faut nit ñu leer. Mm-hmm. gars yi ñooy changer débat bi bëgg ko yóbbu. mel ni ñun dañoo am différence ak catholique yi non non lii question de souveraineté la ñun ñëpp am ay xaritu catholique dañuy am suñ famille yi sax ku ci dem ba ci biir di nga ci gis am mbokk moo xam ne chrétien la. Mm-hmm. donc ñun ñëpp benn la nit ñi nañ bàyyi di créer ay polémique ci askan bi wa baaxul.

y ci ay mesures boy boy, boy, jël règlement intérieur soumettre ci constitution bi wax xaw ma nga am fi école bo xamné cette cette fin du mois état joxula la dara. Mhm. lepp lo def fa école ba yow ya ko trouver say moyens efficace pour nexé nak nga fixer ce règlement intérieur mais tamit. violer bloc de la légalité bi ndax mo le réussir. motax mhm. père, euh, di euh, si commentaire qui tout tudd d'abord né si chaque groupe fixe son règlement intérieur bonjour les dégâts donc des ànd que li nga xamanteni ni moom euh, parce que comme ni suñ la déggee règlement intérieur tamit dafa war a bootu euh, ci li nga xamante moom constitution Sénégal bi nga xamante dafa rappeler en son euh, article premier la laïcité de notre république. te du constitution kese de. Mm-hmm. muy loi muy règlement. gis nga réew. aja dafa am solo ba dañ ne la président de la république fu mu décret sax nga gis ne décret boobu n'est pas conforme à la constitution dañ la demal nga attaquer ko. Mm-hmm. parce que soko ko wul ba délai bi prescrit décret bobu même bu dee jaarul yoon ça demeure valable. Mm-hmm. moo dal ci jabaru ambassadeur yi ma waxon nako naa ko fi la fois ça mm-hmm. chaque fin du mois ñu ngi leen di fay francs te décret bobu biko le président du fi nekkoon di jël li tax mu demeure valable moy ken attaqué n'est pas conforme à la condition bi dañ pour ñu fay la salaire ci

dañuy xool lu leen neex ñu bàyyi ko mu jàll. booy seet presse nouveau régime bi bi mu toogee ba tey lépp lu mu fi jël ci mesure ci lu jëm ci presse ci lu jëm ci voile yi ci lu jëm ci lépp ay test lay sukkandiku am amuñu pouvoir wax lu leen neex. président Bassirou Diomaye Faye sax amul pouvoir boobu. alors. Euh, deux cas yi lañ ko may mu mën a jël loo xam ne n'est pas conforme au bloc de la légalité. Mm. deux cas yi en cas d' état d' urgence d' état de siège te dañ voté au niveau de l'assemblée nationale jox ko pouvoir bi pour mu mën ko def. très bien léegi comme que kooku moo ko mënul nu ko règlement intérieur bu école di mën. très bien alors euh, ñu euh, après ces sorties là euh, qui dit euh, le professeur Cher Omar Djan aussi il est sorti parce que tamit. vous mhm. lirez aussi euh, lettre d'une femme xamante ne la à la fin nous bëri dans la communauté musulmane à na lu ñu comme ben insulte je vais dire wala ben, frustration parce que ci euh, côté avant dernière paragraphe le café il ne croit pas en ce Jésus euh, bi nga xamante il aurait fui c'est un fuyard qui aurait peur de la montagne c'est nous si ni si on tient à ça dañu nous ni que moom génnul àdduna il est monté euh, vers les cieux tay ñooñu nga dem wax ko si ñun tamit attaqué suñu gëm-gëm ci benn yonent boo xamante ni ñun dañoo am lu ñu gëm ci moom ci apporter juste une réponse par rapport à une question concernant le voile nga wara wax ni d'accord aussi ci nga yegg foofu gis nga Adja amna wax yo xam bu ko kenn nit bu ko jël de manière générale xamal ne mom la concerné mom mi ko wax nga rew mi il faut ñu focus sur l'essentiel mhm. débat yi dafa mënta ñàkk parce que autorité yi ñoo koy jël di ci wax ñu bëgg a askan bi mhm. mais du essentiel di nga ngëm-ngëm mooy loo xam ne kenn mënatut a fexe ba mu changer mhm. catholique ba la mu gëm musulman bi mënul wax wax ba mu changé musulman bi aussi li mu gëm moo xam murid nga tiijaan ñun ñëpp mhm. benn laay laay la laa lañ am ak yonent bi nit mënul tout wax ci réew mi ba mu changé mhm. donc xam nga lu ñuy wax question de souveraineté la ñuy régler mhm. suñu loi yii constitution bi mettre ko fi en place na ko ñëpp respecté parce que réew force restera à la loi bu ñu demee nag ba ku nekk am sa règlement intérieur wala ngay def lu la neex bëgg indi ay polémique loolu nañ ko xoolaat. Mhm. xam nga lu tax moo la di nga école bi ñu nekk ñu ne jàngale xam-xam lañ fay jële mhm. képp ku fa jug di tere ay muuru wala ay comporte leneen ak leneen ci ay muuraay rek pour man leneen moo la tax a jug lu dul jàng. Mhm. parce que la ngay jàngale amul fooy examen nga bindal élève bi ne ko da ngeen di ku muuru may ko cinq. amu ci. cela veut dire que yenn kàddu yi boo ko jëlee rek. te sax moom est-ce que contradictoire su fekkee ci euh, lettre am dafa on peut pas euh, mënuñu bañ li nga xamante ne voile parce que c'est un patrimoine du Christ mm-hmm. étant un patrimoine du Christ alors il il réside où le problème d'interdire le voile Tu enceinte boobu nga on voit même les sœurs les établissements privés établissement privé di voile c'est que Adja affaire de xam nga lan la question de bëgg bëgg da ci daf ci y a nga nit ki mm-hmm. yow yaay choisir même ce biir xol li ci ne des fois jaayanteel même nit ki soo ko des des comportements neexu la dara su waxee dara bul tëb a tëb attaqué ko ndax nit ki ko wax xoolal ndax la mu wax dëgg la maanaam idée bi mu wax moo am solo parce que foofu la ñuy sukkandiku. Mm-hmm. mais bul dee da nga mere Ousmane Sonko amoon moom relation neexu la la manière doom ni muy waxee. wala ni muy ci ginnaaw sax doon na defaan Ousmane Sonko moom affaire bi. waaw waaw mais mm. tey li mu def nii en ce moment man. man mënuma fondé wu ci comportement yi muy wax ci Ousmane Sonko et cetera di nga Ousmane Sonko mooy premier ministre du Sénégal. Mm-hmm. kenn gënu ko placé mooy chef du gouvernement. Mm-hmm. kenn gënu ko placé pour muy rappeler conditions yi nga xam ne constitution bi prévoir na ko. Mm-hmm. te bonne gouvernance lañ woote. jub jubal jubbanti. te ci jub jubal jubbanti googu du day def lu ko neex de. lépp lay ci yoon. ci yoon lépp luñ fi gisoon ñu koy def te teguwul ci yoon dañ koy jubbanti. loolu moo tax muy rappeler conditions yu bari yu fi nekkoon ñu koy def. Mhm. alors que teguutoon ci yoon mais doon nañ ko def. Mhm. mais day dakk mhm. mais bu doon li muy rappeler noonu dafa fekk ne moom la muy wax moo teguwul ci yoon kenn du ko ko appliquer du ma toog fii di ko défendre. mais dama xam ne lii ak fu mën di dem moom mooy am raison. lii juge mënu ci dara kenn mënu ci tous. parce que li mu wax constitution bi moo ko wax. moo ko wax mais côté xam nga lu may bañ ñu changer débat bi. di ko yóbbu ci islamu chrétien. Hmm. ñu ne catholique yi Adja amuñu benn problème. suñ gouvernement bi ay catholique a ngi ci. Hmm. popo naw. muy Jean Baptiste keroog bi ñu toogee fii mesure yu rafet yi mu jël lañ doon wax bi ma taalee laay ñëpp ko rafet rafetlu parce que mën na di nekkatuñ ci débat yooyu. Hmm. ngëm-ngëm nit ki mën nga gëm li nga gëm. dëkk ak nit ki du ngeen bokk ngëm-ngëm. sa comportement rafet sa comportement bu rafet sax. mu dem ba jàpp ñee la ci bàyyi ngëm-ngëmam ñëw fekk si la loolu la ñu diine sant. Mhm. muy ci ñoom muy ci ñun. lakum diinukum waaw ku ne nangul ko sa diine. Mhm. parce que bul xam day am ëllëg yàlla moo ko xam mais ku ne li nga gëm gëm ko. Mhm. man du ma critiquer. tey jii am na fee yu am ci jeux olympiques yi. du n'importe la France fait di li am ci jeux olympiques français mosul am feneen. pourtant ñoom waxuñu ci. maanaam am na ñu wax mais fi ñu orienté débat bi. daf ko jarul polémique baaxul werante baaxul. Mm-hmm. te nit ñi nag yeewu nañ kenn mënut a jaxase nit ñi ci seen biir man catholique yi ma am comme xarit su ma paree fii dama leen di woo dañuy déggante amuñu problème foofu. Mm-hmm. buñ jaawale affaire yi quoi ci loolu nag la politique demal nga politique ci débat d'idées euh, le conseil euh, du laïcat tamit génn nañ. Mm-hmm. def communiqué.

travail comme aliénation maanaam ngay liggéey di liggéey di liggéey pour saafara dara te doo ci am gain de cause parce que li Ousmane Sonko wax dégg nga ko dégg naa ko établissement privé yi nekk ci réew mi di tere xale yi muuru te chaque fin de mois ñoom ñu jot seeni subvention yoo xam ne ci état lay jóge subvention yooyu ñuy jot kan moo koy joxe nga foofu doomu musulman yi dañ koy joxe maanaam pa xale yi di mourou dañuy joxé dañuy fay impôt dañuy fay taxe mhm. loolu lañuy dajalé chaque fin du mois. ak ñeneen yi aussi. ak ñom aussi ak ñom aussi. loolu nak mo tax recevoir bobu ñukoy recevoir diko jot mo tax nak dañ leen di teunk pour ñu soumettre ci même bu ñu jotutoon sax dañuy soumettre ci constitution bi réew amoo droit jël fa mesure bu violer bloc de la légalité. Mhm. xam nga lu bloc de la légalité mhm. renvoi au principe de la légalité. acte bo mën di jël bu ko violer rek ça encourt son annulation comme que président la ñu tënk ak ministre avec son gouvernement ak seen préfet mhm. la ñu tënk ba mënuñoo jël loo xam ne day violer loolu waxuma laa nag ab établissement privé mhm. neewuñ ko mu fixer règlement intérieur de na ko fixer mais bu koy fixer nay prendre en compte la con préambule ba sax da koy prendre en compte waxuma laa la constitution Moustapha Mamba Guirassy euh, moom it di jëwriñ bu ñu dénk wàllum jàngale ak jàng beeg jàngale bi moom it mu génn daf sorti waaye moom euh, qui di euh, euh, Elimane Diorine di Ousmane Sonko moom dal la euh, appuyé ne nag moom jàpp na ni il n'a fait que rappeler comme ni nga ko waxee <laughs> article premier de la constitution et que tamit affaire bu affaire wu xaaj ak seen amul doomu jullit bi wala doomu chrétien ñep ñëpp ñoo ci bokk yam c'est-à-dire amna école yo xamanteni sax waaw ñu imposer tamit voile waruñu tamit terre voile donc ku mu neex ñëwé ak selon tes croyances jàng moo la fi jàng nga fay. question bi buñ ko topé duñ ci jógee te même wax ji lañ ciy waxaat. Mhm. keneen ku fi mën di wax. Mhm. boo waxee lu waroog li Guirassy wax wala lii ma wax xamal ne tegoo ko ci yoon. yoon ñaar amu fi benn moo fi am kum neex nag nga toog interpréter nu la neex mais test yi bu juge bi doon àtte tey di interpréter mënu koo interpréter mënul nii. Mhm. nit ñi dégg nañuy tubaab. lépp looy jël dafa war a conforme au. à la constitution le looy de foro conforme à la loi le looy de foro conforme au règlement ordonnance les décret tout les képp ku acte ne de na dañ le juge ko a kan a dañuy fait quoi? ko di menace doon def bu ba di jaar ci dëkk contrat clause parce que lan sur l'économie, c'est replier ci économie fait tout à fait dire. D'une nga monde bi léegi ñi fi mën a am doole ñi am doole nga mën a signé ñoom contrat dafa bari. Mm-hmm. tey lu France bañ Russie mën na koo nangu. Mm-hmm. tey lu France bañ États-Unis wala Angleterre mën nañ koo nangu. Mm-hmm. donc xam lu mu bëgg. ñoom bu dee état France moo ne ci seen ginnaaw yi ñuy def jaru ko. mënoo ne ci réew ne fa minorité. yow li ngay def sax ñoom ñëpp ànduñu ci ak yow. Hein? ngay ci créer ay problèmes yoo xam ne ko mais c'est pas parce que tamit dañoo nekk minorité tamit que dañu leen war a léser. xam nga font partie de la. Ken léser wu leen. waaw mais boo tamit. non non xam nga ken tax léser wu leen. Mhm. c'est parce que lii ñuy wax ni constitution moom moko wax. man tooguma fi di faral ci musulman bi wala may faral catholique bi. Mhm. man catholique yi amuñu ma ak ñom benn problème. di mhm. nga mom li muy def waji, déclaration yi muy def sax dina ci gis chrétien yo xamné anduñu ak mom. di nga li dafa nek sujet yo xamné sax dañ ko wara moytu di ci wax mais suñ ko xasee rappeler nit ñi bañ xam lii ak lii ak lii la ci yoon prévoir lu neex nag waaye nga jàpp. Mhm. mais waxu Ousmane Sonko buñ ko transformé yóbbu ko ci beneen sens waxul ci entre catholique yi ak chrétien yi waxul foofu. Mhm. lii Ousmane Sonko wax sëñ Mbaye Sy Mansour toog na fi public boo xoolee ci vidéo yi daw mu wax ko carrément comme ni ko Ousmane Sonko waxee. Mhm. te ba mu koy wax yàgg na ko te ñi fi nekkoon jiite fi ñooñ la ko doon wax. ni xale yi ngeen di di jàng ci yenn établissement yi.

Euh, ñu gis euh, ki nga xamante ne moom moo di euh, jiital réew mi di Bassirou Diomaye Faye démb mu demoon fële ca Touba si journée nationale de l'arbre bi nag mu def ab discours boo xamante ne nag dafa woo askan bi ñu am culture di jëmbat garab bi saxal garab ndax tamit dafa nekk lu am solo loo xamante ni nag dañ ko war a di cultiver si suñu réew. waaw Adja affaire jëmbat garab yi moom dañ koy rafetlu. Mhm. xam nga lu tax. Mhm. xaw ma nag la ñuy jëmbat lu mu doon. mais tey su ma euh, ah, ah, ah, waaw mangue ku ne xam na ne am na njariñ mhm. dèjà rek su manqué mën na dem ba indi ker bu bari te day génne ay fruits mhm. ba pare ñu koy dundee c'est différent ak projet yi ñu fi doon gis te lii ñoom ñu ngi koy def te kenn fayul kenn mhm. ay jeunes yooyu porté volontaire la ànd ak ñoom dem ba Touba di ko def cela veut dire que di nga régime bii amna différence ak ñi fi nekkoon. ñi fi nekkoon jël nañ fi ay jeune di leen di leen jëmbatloo ay garab di leen fay chaque fin du mois quatre vingt mille garab yi ñuy jël benn du ci sax. Ah da nga koy romb ñu ne la jëmbat nañ ko fi tey un mois nga rombaat ko garab gi dee du màgg mukk am na sama koñ sax koo xam ne bi mu jëmbatee dama ne ko dama ko waatal ne du màgg. Mhm. ni ma ko ko waxee jëm ma roose naa roose. ba sonn parce que lañu ji moo baaxul amul benn sens. li leen intéressé woon mooy nañ jël quatre-vingt mille yi di jox booy yi tibb suñ budget bu loolu jeexee booy arrêté alors que yii nii dafa nekk loo xam ne dafa am solo. Touba ku ne xam na ne milieu la boo xam ne côté Bawol Bawol bi noon day tàng. tey garab yooyu ñu fooy jëmbat su màggee. tàngoor mënul wàññeeku foofu. du génn ay fruits. loolu la quoi maanaam. ñii ñii man dama gisagul lu ñu leen mën a critiquer quoi moo tax xam nga tamit booy critiquer wala nga bëgg a critiquer da ngay am raison quoi mm-hmm. mais tey booy critiquer t'amoo raison foo jëm mm-hmm. critique sans raison baaxul quoi

di am bonne information bu ñu ko xasee am rek walante dootul am mhm. gis nga jéggi jóob xam nga ban problème la am mhm. te lii ma lay wax source yu leer laa ci am nit mënu ko dindi mhm. fi mu nekk ci ministère bi di liggéey dañ koo remplacer mu war a def passation de service le vingt neuf bii passé jéggi jóob ñu koy xaar ñëwul ñu koy woo pour mu ñëw jël document yi nga xam ne moom la doon gérer joxe ko ki koy remplacer remplacer ko mu lànk ne du ko def. Ah te ku ne xam na ne tey li nga liggéey ci document lay nekk moo mën a justifier sa gestion. Mhm. léegi nag bu dee yow na nga gérer woon daa baaxul ba tax nga ragal a joxe document ba parce que boo ko joxee dinañ xam li nga exécuté lépp foofu noonu dañ koy xam. Mhm. mu ne du ko def du ko joxe te du def passation de service. Mhm. te léegi kooku du war a toog su amul document yi maanaam. archive la jot am foofu noonu nan lay assurer le bon fonctionnement. Diégui mhm. Diop ban pouvoir la am ba mën a téye suñuy document ñun ci administration booy liggéey war ko joxe. ki la remplacer dem liggéey nga ne doo ko def. Mhm. même bu deful passation de service moom la kon mais na joxe document yi. léegi document yooyu nag la téye lànk ne du ko joxe dem ranger wu ci opposition bi ne day politique. Hmm. pour lan kaas. Nous faire tout ba bokk ci liste député nationales, élections, élection mhm. pour mën a protéger boppam. Mhm. gis nga il faut que nit ñi xam. Mhm. victimiser yooyu ngeen di def nit ñi dañ ko xam bu respecter leen li yoon wax kenn amul seen temps. di nga ñun man buma ma sañoon bu ma toogee di débat duma ma débat sax ci ñooñu damay bëgg ñuy débat ci lu am comment on peut faire pour développer mais toog fi di wax ci ben personne bo xamné mérito woko déjà li la Sénégal défal sax mérito woko ba paré li ba paré djougué fi bëgguñu sonal la mm-hmm. laataa ñu jàll deuxième partie beaucoup de gens ont sa avis mm-hmm. si euh, l'arrestation de Baba Diagne Baba Gueye plutôt nga xamante mom dafa nekkoon étudiant faré woon faré ci parti bi nga xamné mom modi di Pastef gannaaw ba mu yëkkatee ay ñu japp ñu jàpp wul tegginewul euh, ci euh, Ousmane Sonko ak Mame Mbaye way itam jëmale ko ci yenn juge wa li ma la wax rek force restera à la loi mm-hmm. et nul ne censé ignorer la loi muy Pastef nga bokk muy Benno nga bokk mm-hmm. muy Taxawu nga bokk ñëpp ci bokk yam mm-hmm. dis nga justice du mm-hmm. prendre parti gis nañ ñi fi nekkoon ku àndaan ak ñoom boo defee dara ñu protéger la jël seen conc teg ci loolu du justice justice ñëpp ñoo ciy bokk yam Azura génn na fii bi mu njëkkatee kàddu yi ñaaw nuñ ko def dañ ko jàpp poursuivre ko ne ko keneen ku bokk Pastef aussi boo génnee jël ay actes yoo xam ne day violer constitution bi wala da nga offensé autorité yi mm-hmm. dañ lay jàpp dugal la ci kaso bi comme ni nga bokkee Pastef fa nga bokk feneen moo ci yem mm-hmm. loolu moom ku la ci wax lu dul tamit day wax lu ko neex force restera à la loi quoi nul n'est censé ignorer la loi jaajëf. il est 8h passé de 39 minutes dañuy ñëw nak ci li nga xamante mom modi point gëna gën tay fës tey ci euh, gonk euh, actu commenté bi. Mhm. Babacar euh, am nañ fi ñent poñ yu ñu war dañuy wara a mhm. voilà reddition des comptes lañuy ñuy inshallah